ah seet sil ki nga xamante ni moo di soxna Nafi Fallou Fall soxna Nafi Fallou Fall aka doy a la voyante guérisseuse mbokk yi adresse baa ngi noonu cité Aline Sow pal bum la ko tax a bàyyi de defal ni nga daan def mm-hmm. ni nga daan gannaaw jullit nga rek baax na mm-hmm. gannaaw jullit nga rek baax na ni ngay jullee jullee ko jël sa loxo fas ci sa dënn ki mu neex na bàyyi loxoom mu yoore mm-hmm. ki mu neex na jël loxoom luy loolu. du farata du sunna du farata bu dee sunna itam yonent bee ko daan def. Mm-hmm. bu du sunna itam yonent bi daawu ko def. bu yonent bi gannaaw fekki bi mm-hmm. lu ci waay jullee baax na salloo kamaara ay tumooni usalli jullee leen ni ngeen ma gis may jullee la yonent bi wax ñun gisuñu ko ñi ñi borom xam-xam yi wax la ñuy wax ñun bu ñuy julli dañuy yor suñu loxo ku ñu critiqué waaw ñi julli def ni ku leen di critiqué gannaaw ñépp ay julli lañu rek baax na. ñëpp julli lañu rek baax na. Hmm. na ko jullee. Hmm. na jullee ni muy jullee bu mu ci dellu gannaaw mukk waaw bu julli jottee julleel noonu. Hmm. boo ci delloo gannaaw du du dëgg ci yow. kon li nga sonn def dëgg ci yow. pal de mooy mooy lan pal day dara. nekk président mooy lan. yow yàggul fukki at fukki at ak nangam <laughs> fukki at ak ñaar nga jeexal. loo ci def loo ciy def na baax na rafet. waaw ah, waaye na eh, nangam nangam salafiste la dem na Touba wane na fa yar ak teggin ñëw na Tiwaawoon wane na fa yar ak teggin la ca des nag moo ci des dañ leen naa war a jox yar jox leen teggin la ci des mu liggéey rek bu coow li bari itam na liggéey li mu doon na ko doon rek bu mu dellu ginnaaw mukk ci li mu doon billaahi wallaahi tàllaay bu doon man bis bu ne ma julli ñu génne ma tele bis bu ne ma julli ñu génn ma tele ma ne nii wala sax bu ma neexee ma ne nii su ma neexee sax ma def nii lu ci sa yoon xanaa julli la waa ñu dul julli nag wallaahi ñooñu war a waxat nañ wax ak ñun kii nekk jullit nekk ci lislaam nga bëgg a dal ci kawam ah mm-hmm. kii nekk julli nga bëgg a dal ci kawam mais loolu loolu nga gis ko dul julli te ne jullit la du julli du woor du te ne julli la te waxoo ko dara kon kay yow kii palgee la neexul rek danga nga naan palgee man neexul moo tax ma wax ko lii waaye nit bu la neexee kay looy xool ci lu muy jullee xool ci nu muy woor xool ci nu muy aji mag xool lu sa mm-hmm. julli gi yaa koy fay mm-hmm. ndax julli gi nit a koy fay du yàlla koy fay ku ñuy julli ah ko bàyyi yàlla mm-hmm. dafa am lu nit moom am lu yàlla moom li nit moom mooy ja mooy mooy suñ diggante suñu relation ma ak yow waaye li yàlla moom nag mooy jaamu ko waaw mooy jaamu yàlla waaw jaamu ko waaw jaamu yàlla wut ndimbal ci yàlla loolu la ni moom la moom la jaam seq ak boromam. Mm-hmm. boo ko jaamoo noo ko jaamoo baax na. baax na. Euh, keroog euh, wax nga ko sànq ma yeggali foofu rek gi teggin gi danuñu gis président euh, def ni nga xamante ne def na ko keroog wàcc ci suuf xalif général yi toog ci suuf tàll leen ay loxoom daanuñu woon gis président di def noonu waaye njëkk ko gis ci Bassirou Diomaye. waaw dañ ko dañ ko déggoo rek xam nga ne pal boo ko amee. Mm-hmm. da ngaa war a nekk ca kaw toujours. waaye da ngay nekk ci kaw ba yegg foo xam ne da ngay wàcc suuf parce que suuf moo mooy cosaan suuf mooy lépp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci suuf la daan toog mm-hmm. ci suuf la jàngee léppam ci suuf la parce que dañ koo wax ne ko waaw yonent bi yow lu tax ngay tëddi Omar da ko fekk benn bis mu tëdd suuf si def nii rek di tëdd Omar di jooy yonent bi ne ko looy jooy mu ne ko dama xam ne ni nga teddee. Hmm. gën a tëdd buur yi. buur yi li am amu euh, nga am amuñu ko te ñoom kenn du leen gi ci suuf ñuy nekk ci kaw yow ngay tëdd ni suuf mu ne ko buur yi dañoo xamul li xew. Hmm. fii la mujj fi ñuy mujj ñu njëkk fi. fii mujj nañ fi njëkk. waaye ah, ah nekkal sam taax nekkal ci kaw et taax mu bu kawe. Hmm. bis boo dee ñu wàcc li suuf. waaye yow moom. ko ci kaw la ci suuf nga jëm nga naan ci kaw waaw boo dee ci suuf lañ lay indi ak koo mën a doon ku la mën a jur foo mën a juddoo foo mën a bokk boo dee ci kaw ñu indi suuf te néew ngay tudd néew rek ngay tudd waaw amatoo tur mhm. ana néew bi ñëw na bi jullee nañ ko rek bi ñëw na ndax néew bi jullee nañ ko suñ la jullee nag génn la sa kër sa kër lañ lay génne fanaana la ca morgo ba glacé la buñ la gal waa lu ko lu ko waral bañ nga soppeeku bañ nit ki soppeeku mu nëpp xasaw lu tax ñuy suul nit ba bañ mu xasawal ñu loolu rekk tax ñu waaye la am solo ci nit ki yàlla jël na ko muy moteur bi moteur bi yàlla jël na ko yàlla loolu rekk a ci am solo mooy ruu gi mooy moteur mooy li doxal nit sama la kaakaa nga yëg ko ni micro yi da ngay jubbanti loolu mooy ruu waaye bu ruu gi léegi ñëpp réeba sax waaw mm-hmm. loolu yàlla jël na ko gis nga ma mécanicien bu jëlee bu jëndee moteur mm-hmm. da koy essayer dana ko taal mu tàkk mu ne baax na mu taal ko mu tàkk fay mu ne baaxul tàpp tàkk fay muy muy yéeféer muy ku bon ki mm-hmm. waaye tàkk bi mooy ku baax ki foo mën a bokk boo dee dëkkal fu la neex nag fu la neex dëkkal fu la neex dëkkal fu la neex nekkal lu la neex solal lu la neex lekkal lu la neex rek eh, acca waaye bis boo deewee te da dee nag bis boo deewee acca amul moom armeel milliardaire yaa ngi am millionnaire yaa ngi eh, faqir yaa ngi foo ko gis amul moom buñ suulee ci kër gi suul la ci àll bi yëpp a yem suul rek mhm. sëñ Cheikh dama mës dégg mu ne dafay dem tukki am dëkk bu mu dem ndóomoo la defe na na na ñu ni ko docteur bi ne ko ah tee ngaa toog wàññi eh, tee toog ndax sa yaram bi mu ne waaye yow nee na moom lii luy wér bu ma dee ñu suul ma ci àll bi waaw bu ma dee ñu suul ma ci àll bi moo ci ne suul ni ci kër rek suul ni ci naa waaye gis nga ko hmm. ba faatoo ca àll ba lañ ko yóbbu ca Tiwaawan waaw sëñ jàngale na lu ne jëf la jàngalee waaw ca àll ba lañ ko yóbbu loolu loolu mooy dëgg. Mhm. fuñ la yóbbu baax na sa jëf rek la fay fekk. waaw fuñ la mën a suul la la la Abu Hurayra waxoon bañ euh, ba Xasan gaañu ñu ñu di ko suul fekk mu dénkaanu niñ ko suul ci maamam ñaanal ko Aïcha mu ñëw ñu war koo suul foofa ah, Ousseynou xarit ba ne fa lañ koy suul. marwaan Marwan ibnu Hakam ne kenn du ko fi suul parce que booba moo moo moo moo yor foofu gars yi ne dañuy xeex Abu Hurayra daf na leen dama leen di laaj ndax nit fu mu dee ñu suul ko fële ko jëfam di fekk wala du jëfam du ko fekk ci kër geeg àll baa ci yem ñu ne ko ankay maam fu ñu ko suul fële ko jëfam di fekk mu ne yóbbu leen ko ca àll ba jàmm gën jawoon jàmm gën jawoon hmm. cey li fi xewoon jàmm ko gën. Mhm. yóbbu leen ko ci àll ay mu fuñ la mën a denc rek baax na. bo la mën a denc. na Basiiru Jomaay. Mhm. Fay am yar. Mhm. am bi mu am. toog ci suuf du ko wàññi dara mooy mujj. wallaahi suuf suuf say mujj. ah oh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ li li nu mu daan def. ci yaram ak tegginam. ak yow. ak déet des na benn bi. su su Hmm? summi. xalifa général bu mu dama ne lu daan summi. mbaxana ah, <laughs> ci suuf. mbaxana ma toog suuf summi ko mbaxana ma toog suuf uuf kaala gi soo waxee man man ma mosuma gëm ni sëñ tax xalifa lay doon. damaa defoon ci mbàkk mbàkk yooyu sor yooyu la. nekkee xalifa lay doon. yaram ak tegginam rekk a tax. Mm-hmm. mosuma koo foog. ndax wanuwu ci dara dara dara ne maay toog nangam nangam damay préparer sama xilaafa dara ku toog sëñ baara keroog bi sëñ baara dajale si keroog damaa jooy billaahi wal kitaabi mm-hmm. dajale sët parce que lama ma jooyloo mooy li sëñ mun wax daf ko ne mbàkke ñu ngi sa kanam ñu sa gannaaw ñu ngi sa ndeyjoor ñu sa càmmoñ loo wax ñu def ko ma waaw kii kii dana doon xalifa mais di ko topp rek ba mu doon xalifa keroog loolu la ko wax donc su sa kanam ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi sa ndeyjo ñu sa càmm seetaan leen ko. leen ko waaw. loo rek ñu def ko waaw sëdi yëpp a ngi nii toog. waaw eh, sëñ sëñ Sidi Maxtaar ñëw mu defaat noonu ba sëñ Sidi Maxtaar jógee nekk mooy moo topp ci moom. topp ci moom ba pare kenn xamu ko. bu doon ñun ñii nga xam ne dañoo dangaaral ba maara di taali ne gàng gàngaaral rëy rëy goo xam ne maa day taali koo doomu sëriñ boo fi gis mu ngay gàngaaral waaw koo gis mu ngi koy def waaye gis nga ko moom dafa oyof oyof wàññiwul dara dara dara yar ak teggin boobu mu wane woon nag moom la ko Bassirou Diomaye fay delloo ah la ko Bassirou Diomaye Faye delloowaat ndax loolu la leble woon gisuloon ko ko fay Bassirou Diomaye Faye nag moo ñëw fay ko ko. ndax moo nekk président de la république. waaye nag day jeex. day jeex gannaaw day jeex nag mu teel ko wane. waaw kay. voilà hmm. euh, laa amoon nga xamante mooy ak màgg fan yi dañu gis ñi nga xamante ni ñoo di célébrité yi dañuy dem ba pare ñëw nekkaat ci li ñu nekkoon oustaz loolu naka la lan la si lislaam wax. Mm-hmm. waaw du wekki jikko. Mm-hmm. màkk du dindi jikko. Mm-hmm. kenn rek kay dindi jikko ti jaamu yàlla yi. ki benn jaamu yàlla rek kay dindi jikko muy julli. inna salaata. tanha anil fahshaai wal munkari. waaw julli rek rek julli gu baax moo lay tax a bàyyil bon. julli gu baax laa de. waxuma julli ngay gaa yi julli buñ paree nangam nangam déet waxuma lool julli gu baax mooy tax bàyyilu lu bon waaye aj màkka xam nga ñu ngi ciy nett li xisa bu reetaan ti ti ti nekk dëgg xam nga muus dafa aj woon màkk waaw mm-hmm. ba mu demee màkk ba ñëw nag janax ne neen neen dem ziyaari ji ko mm-hmm. maam janax wax loolu ñu ne ko ah buñ ko ziyaaree ba yoon wa du xumbo mm-hmm. mu ne man de duma dem mhm. man naa leen a yóbbante nag ngeen yóbbaaleel ma sama àddiya waaye man dem di dox ñëwee ko di daw daal tàyyi naa waaw looluy dëgg dem di dox waññee ko daw xam nga ne màkk du dindi jikko mu ne leen màkk du dindi jikko fàdd gam daan fàdd rey gam ñu daan rey mhm. ba tey la ko gën a man waaw màkk mënul ci nit dara dara dara dara yow yaay xam nag ni lii ma def kat baax na waruma koo boolee teeg lu bon naa bàyyi lu bon waaw naa bàyyi lu. déedéet. Mhm. màkk du dindi jikko. du dindi jikko du dindi jikko. Mhm. mu am critique boo xamante ne ñu bëri tamit euh, critique euh, wax nañ ci parce que ku dem màkk euh, umra wala nga aj ne labayka allahumma labayka dañoo jàpp ne war nga dem dindi sa karaw wattu ji. li dina santaane la wala lu du am di bëgg rek. def bu la neexee wattu la bu la neexee nga nga nga wàññi ko. loolu la yonent bi wax loolu la alquran wax alquranul karim moo wax loolu nee na watal bopp bi walla nga wàññi karaw gi loolu la alquran wax watal bopp bi wala nga wàññi karaw gi yow mi aj màkka loolu la alquran wax kon kenn du leen mën a jam duñ mën a critiquer ki watu duñ mën a critiquer ki wàññi karawam ñaar yëpp dagan na waaw ñaar yëpp dagan na waaw may wax li dagan kay li daganu taxul may wax. rasta loo koy wutee màkk nga dem màkk rasta. Mm. da dagg rasta yi ndax da ko war a dagg danga nga ko war a dagg dagg ko ba mu dañ. Mm. waaw daggal ba mu dañ. Mm. booy dem màkk daggal. parce que yàlla kenn du ko fooye. yàlla kenn du ko fooye yàlla kenn du ko fooye. waaw nañu def ngir yàlla walla ñu bàyyi. waaye hmm. waaye dem màkk léegi tukki la rek. tukki la rek waaw tukki la rek. soo ñëwee di netti la ma fa gis gis naa fa lii gis naa fa lii gis naa fa lii eh, ñii di ñii ñii lu lu lu du du aj màkk. Hmm. dëkk ba nag la fa nekkoon tey la fa gën a ne la fa yàlla bañoon tey la ko gën a bañ la fa bëggoon tey la ko a bëgg léegi nag nit ñiy seet. waaw waaw hmm. nit ñiy seet. boo demee màkk xaw ma di ni ngeen di def eh, nu mu tudd di sinap am na am na leneen statut yooyu mooy lan. wane ni dem naa fii. pour wane ne dem naa ci fii mooy. jabal jabalu aada fii mooy nangam nangam fii mooy nangam nangam fii dem naa fa fu nekk nga duuxlu booy foto dënglu yooyu ban njëriñ la amul njëriñ. amul njëriñ xanaa xamoo ne am na ñoo xam duñ jóg màkka mm. te kenn xamu ko ci ñoom. parce que li wuti màkka mooy la fa yàlla wax. la fa yàlla digee la ñuy wuti màkk mooy lu baax mooy lu yiw mooy lu sell mm-hmm. waaye digewu fa yiwa di nga dem ak yiwa di ak reewande di wane woog di damaa am xaalis ak lu ma neex laay def loolu yëpp reewande la rek reewande dong la du du dara mm-hmm. yooyu yëpp reewande la rek mm-hmm. da ngay def la yàlla bëgg yàlla du nit nit sax boo booy dem ci moom sëñ si di waxtaan mi noonu waxtaan léegi waaw booy dem këram doo yaru ah, da nga yaru boo yarul ñu yar la boo yaruwul yar la dem fa di dem fa di jaay jaay ñàkk teggin bàyyi fal niñ la kuur ba nga ba nga ba nga normal waaw nañ ba nga normal demal tiwaan di jaay ñàkk teggin ba dañ la ba nga bëgg a dee waaw parce que yar dafa baax teggin dafa baax surtout nag yàlla nag waaye yàlla rek nga dem aji màkk nangam nangam loo neex def du noonu booy demit demeel alal ju lew alal ju ku ko ajee sa aj dana nangu ku jël alal ju lewul boo ko ajee ka moom alal jaay moom aj gi yow coono ba nga moom coono ba nga moom ka moom alal ja mooy moom aj yow coono ba nga moom ti boo ne labbayka ñu ne la laa labbayka wala saadayka yëpp lay yow lay wuy ku la woo doo tex àdduna doo tex àllaaxira loo fi wut loolu lañ lay wax kon aji màkk yombul li fayal bor yi nga yor yëpp bor yi nga leb yëpp fay ko bàyyi fi dépense booba ngi ñëw fayal courant fayal téléphone fayal lépp bor boo yoree nit. miraas sa bopp wa déedéet waaw <laughs> miraas sa bopp ah? ah, de de ñu bëri dañuy wax loolu booy dem da nga war a miraas sa bopp olo olo olo olo ñu bëri dañuy wax loolu sama gannaaw bandak daal moo di. Hmm. bul yoreel kenn dara. Hmm. bul yoreel kenn dara sa gannaaw set na bàyyi nga fi dépense boo deewoon tey. sa dépense jabaram soo soo dundee sa dépense da nga ko fekk euh, fay nga bori fay nga lépp courant téléphone looloo tax ñu la nga miiraa sa bopp waaw tax ñu la nga miiraa sa bopp fay nga loolu lépp waaye du miiraa su nag séddale sa alal déedéet hmm. doo doo jël sa alal di ko séddale ñu dem bàyyi ah. borde ah, ko waaye amuñu aj hmm. bala ngaa aji da ngay am da ngay fay parce que li ñu yàlla wax moom ngay def liñ la wax ngay def boo ko deful def la la neex doo am la nga bëgg sëñ Tuubaa ni na nit du def la ko neex man faala ma shaa laqiya ma saa koy def lu la neex def da nga dajeeg lu la neexul waaw mais sax boo fa yeggee farata yi nga xamante ne moo nekk ci aj moo nekk ci umra boo xasee ba yegg ci dëkk ba la nga war a def ci aj gi moom nga war a def ci umra waaw la nga war a def ci aj gi yëpp ngay def ci umra yi li ñu wuutee rek mooy umra yàggul umra moom yàggul umra man nga ko def benn bis waaw man ngaa def benn bis bu la neexee ñaar bu la neexee ñett waaye umra moom yàggul aj mooy yàgg moo tax aji gën a nekk farata umra sunna la waaw umra moom du du yàggul waaw su aj moo gën a nekk farata xam naa ñu tëjee rek ak li nga xamante ni yaakaar naa ni mooy le 17 avril bi nga xamante ne weesu nag ñu ciy ziar njabootu Cheikh Béthio gépp waaye mu koo xamante ni xam nañ ni sa digganteeg moom muy sa xarit bi soxna Aïda jàll waaye ñu gisit li nga xamante ne mi ngi koy def ci daara yi aljuma gu jot mu yëkkati ay teraanga wër daara yëpp séddale ko fa euh, sa diggante ak moom aussi lan ñu mën a tënkal rek ak yan kàddu ngay jàll daal le dix avril mm-hmm. mooy diggante bi nga xam ne sëriñ Béthio daje woon nag ak sëñ Saaliw. Mm-hmm. daje nag dañ koy fonk. Mm-hmm. daje dañ koy fonk ndax du caaxaan sëñ Saaliw du caaxaan du nitu caaxaan kon ku dajeeg moom bés ba bu jotee war nga koo màggal. waaw moo tax mu di ko màggal. Euh, soxna ay nag sama xarit la sama wóllëre la sama soppe la sama lépp la waaw sama lépp la kooku moom duma ko dindi parce que man mm-hmm. sama yoon nekku ci li nit ñi nekk mm-hmm. man li sama yoon nekk mooy boo nekkee njub rek maa ngi ci yow gis nga bu ma jotee ni nga ko waxee mm-hmm. daar yi yëpp daar yi ëpp boog parce que senegal dafa naqaree waxee daar daar yi ëpp dañ leen yóbbul sama daara boog sama daara boog ma wax boog mu gën a leer sama daara moom mm. dana fi indi lekk dana fi indi fur dana fi indi boisson dana fi indi ndox dana fi indi ceeb dana fi indi yére dana fi indi lépp lépp lépp lépp. ajjuma bu jot ajjuma bu jot vendredi bu jot ti ba mu ko dalee def kenn xamul kañ la. ay at ajjuma ah, bu jot mu def ko waaye loolu nag ku koy def luñ la mën a wax. Hmm. da ngaa baax wala baaxoo. da baax ah? hmm. <laughs> da baax. ku baax nag. baax na ku bon bon na Sénégal liñ bëgg nit ku bon. nit ku alku nit ku yàqu ñu naan diw nangam géri la bàyyi leen jàmbur nangam fekk déedéet ki baax nanguwu ñoo wax mbaaxam tey ni yàlla tere bu mu yàlla bu mu gaaw ci kattanu yàlla mbaaxam Aida jàll fi jógoon da dégg seede boo xam ne ci ka koy seede doo ko doo ko doo foog ci moom waaw seede boo xam ne ci mbaaxam ci njàmbaaram ci lu mu daan gis ci moom te nanguwu ko a wax loolu baaxul ay ay de ay ah oh, muy itam ku dee kay ku dee kay xajal nga ñu ah ku xaj la kay jeex na ku dee xajal nga ñu boo ñu xajalee nag ñu mën laa nangul sa mbaax waaye bu fekkee fii yaa ngi fii duñu ko mën a nangu ay di jàll nag jàmbaar la tii li ci gën a neex mooy la jëkkëram nekkoon ca la nekk looloo ci gën a neex mm-hmm. la jëkkëram bàyyi woon ne bàyyi woon ko fi ak moom ca la nekk nekkul ci yëfu jàmbur nekkul ci dara jëkkëram rek Cheikh Béthio rek la wax ah loolu nag baax na nit nit dee na fii nit am na jëkkër fii eh, di di njaalo waaw am na jëkkër di wut far mhm. na am na jëkkër di di ci cagatu loolu lépp am na kii am jëkkër jëkkër ja nelaw mu taxaw gannaawam di def la mu daan def baa mu def ko lu ko ëpp la mu daan def kooku am na solo baax na am na solo baax na te lu baax dañ koy wax lu baax dañ koy wax waaye man de man de ku ma dul wax sa lu baax. Hmm. boo dee doo ma mënoo maa lu ba ma wax ci. xanaa ma bañ koo xam. Hmm. waaye ku ma xam ak mbaaxam waxuma ca nga di ma wax may cofake nangam nangam di wii rek lii hmm. bis bu dee nga ne ma waaw loo xam ci diw may la xaw ma ci dara. dara laa la wax waaw dama ciy maandu. waaw. macha allah yi xam naa ne kaddu yi am na solo loolu ci jotaay bi nga xamante ne seqoon nañu ko ak suñu oustaz oustaz Iran Ndao muy kaddu jotaay boo xamante ne saa su ne rek suñu ko seqee ak moom ni ñu koy bëggee njëriñ lay doon ci askan wi te loolu lañu bëgg ci li nga xamante ne moo di jotaay oustaz amati nañu mbégte bu baax a baax a baax ci am ak yow jotaay xam naa ñu baal rek nga joxe dernier kaddu yu ñu tàggatoo. mais itam am naa mbégte lool. ci dajewaat ak yéen. ndax gëj nañoo daje. xam nga man. Eh, Saliou dafa dem Maroc. moom ngeen daan jokkalool. waaw ti dafa dem Maroc am ngeen sa sama numéro waaye eh, li kiy wax rek. da ngeen may rusa wala da ngeen xamu leen ci lu ngeen may fekk waaye loolu amul solo. Mm. ndax daara la. fii daara la. Mm. daara na kenn du rus sëñ daara kañ lañuy ñuy jàng. ah sëñ daara kañ la ñuy jàng ah, ndax danañ jàng suba aayul. Mm-hmm. ci taal bi mu nangoo jàng nag. Ah. taal bi bañ jàng nag moom danaan patte rek lu laajte waaye taal bi bi mu jàng daan wax sëñ daara ndax danañ jàng suba. ñu ne la waaw waaw kooku nangu naa jàng yow nangu ngaa jàng. waaw bu ko defee lool la. ndax moom moo ma téléphone ne ma ndax suba. Mm-hmm. ma ne ko maa ngi Dakar. maa ngi Dakar. Mm-hmm. suba naa fi nekk incha allah ñëw li waaw loolu nag taalib ma nangoo jàng koo def ñu def ñu fàttali leen ziar bi rek fàttaliwaat leen ko rek mhm. ñu bàyyi ko xel ziar général fanaan si guddi mhm. samedi ca gàmmu soxna umul xayri si bu ñu xëyee yendu ci ziar bi jëlee fa ñaari yiw nag tunqoom ko mhm. moytu ko yàq parce que danga ñëw ci ziar bu ëmb si yiw ba pare génn di wax ak ni naan ko bilay diw ni mu réewee diw ni mu ñàkkee teggin yàqu na la nga defoon yëpp yàqu na yow daal boo ko boo boo ŋaawee sa alal ŋaawal sa gémmiñ rek ŋaaw sa nopp bul nangoo dégg bul nangoo gis. taakat yeeg waxkat yi seetlukat yeeg bul seetlu kenn bul wax ak kenn. bul wax ak kenn kenn kenn waaw mu ngoo loolu nag sa yoon nekk yow yow daal sa yoon na nekk sa ziyaar sa yenu la nga fa jëlee sa ñibbi dellu ko jëriñoo ko ba déwén ak jàmm. Mm-hmm. waaw soo ñëwee ziare Seydi Hadji Malick. Mm-hmm. ziare sëñ Babacar. ziareel maam Mansour. Mm-hmm. ziareel maam Abdou. ziareel maam Habib. ñooñu nga fa sëñ Cheikh nga ca àll ba nga ziare ko sëñ Mansour a nga fa nga ziare ko sëñ Abdou nga ca wetu euh, jumaa nga ziare ko sëñ Moustapha mën nga ko ziare parce que sa ziar. ñoom ñëpp si bi jotee ku nekk mën nga ko yónni ziar. waaw bu defee ñaanal leen ñaanal seen bopp mm-hmm. bàyyi ba déwén ak jàmm ngeen bokk fa dajewaat incha allahu taala yàlla